di wax alhamdulilah rabi alamin bi ñu mënee ñëw waaxu ba ñëw fii. pour waxtaan ak askan bi. merci beaucoup jërëjëf professeur sañse bi rafetna na Chérif Dia tay professeur ak ñimu àndal dañu fassiyene sobu ci élection territoriale yi ñu dëgmal Chérif ñu door waxtaan professeur da nga yëkëti kaaju gi saw nga sant ndek nga ba sul na xana da nga wax ñu dégg la ginaaw biñ la nuyo dañu commencé nak ce thème bi sax yaangi wax 3e voie doñu ko faram fàcceel moy lan.

opposition est le pouvoir askan nous intéressé troisième voie nak euh, lu la ndax euh, sénégalais sax meenuñu ko ndax dañu tam di dég rek pouvoir opposition. non aligné non aligné genre genre bobu la. non aligné dafa a chargé motax mané troisième voie yone bu yoon yoo ñetteelu yoon mooy euh, troisième voie. Mhm. li ñu tax a jóg nag mooy xam nga dañu tudd troisième voie sàmm jikko jàmmoo jariñ askan wi mhm. ñun dafa am lu ñu tax a jóg dañu bëgg li ñu wax valeurs yi jikko yi mhm. yu baax yi yu rafet yi ñu indiwaat ko ci suñu réew ndax loolu problème la foo laal mu metti bi ñu gëstoo dañu gis ni jikko yi ñoo yàqu moo tax ñu ne jàmmoo parce que jàmm ci lépp lépp xaj mënoo développé wu boo amul jàmm mënoo toppatoo santé boo amul jàng euh, euh, jàmm njàng mi dara doo ko def su jàmm amul ñu ne nag su fekkee ni toppatoo nañu jikko yi su fekkee ni jàmmoo nañu dinañu mën a jariñ Sénégal sénégalais yi nga xam ni seen yaakaar dafa rëy lool te dafa mel na seen yasara day yàcceeku tout le temps

askan wi rek moo ñu tax a jóg. Mhm. ci jàmm jooju la ñuy des sax parce que cadre unitaire de l'islam ci kanam bu 10 heures jotee dinañ daje fii ci Ndakaaru ngir présenter charte non violence ngir fitna gi gis nga journaux yi tey xëy nañ ci fitna gi ko bi campagne bi commencé ba léegi ndax yéen troisième voie sàmm jikko ak jàmm di ngeen ko signé ak ban gis-gis ngeen ci am. waa jërëjëf bon damay jëkk a préciser ni dama koy dégg rek nag charte bi gisaguma ko. man nak man juriste la damay bëgg toujours di xam lan lañu bind xaatim ko ci lu melna na charte waaye du dara du problème parce que ko depuis démb ba léegi kon xamna dang da jox cee xalaat bi xalaat bi mo upp solo principe bi ñu né jamm may féliciter donc ni am initiative bi ñom euh euh, euh Serine Al Amin Cheikh Tidiane Sy Cheikh Tidiane Sy Al Amin ak ni mo andal ñom ñep ndax idée bi am solo lan wund la paix encore une fois ñun bu ñuy ak ak doomu aadama dañu naan jàmm moom moo lal voilà suñu amul duñu mmh. a def dara yaram jàng économie dara dara dara kon boog charte bi même nee naa lu baax la ndax la may woote moom lañu soxla tey. professeur lan mooy lan mooy indi jàmm. na la def ba jàmm am lan mooy indi jàmm. rawatina ci langue politique bi. lii indi jàmm mooy ku nekk def sa wareef sa wareef moo di ne bu dee état ci mbirum politique bi nga fexe ba élection yi jaar yoon loolu c'est déterminant te dañu bëgg le 23 février incha allah ñu am ay élection transparente maanaam lépp lu ñu war a def ba nit ñi jóge seen kër ci jàmm ak salaam dem dugal seen seen seen këyit ci biir urne ya ñu état organiser ko na mu waree kenn bañ ñaxtu naan gisuma sama carte d'électeur naan teguñu fi samay bulletin de vote ak yu demee nag demee ñeneen ñi tamit xam ni li ñuy wax droit à la paix maanaam ak xëy yelleefu nit la mu am jàmm kenn mënu ko jalgati kenn mënul ni man bu ma neexee dinaa duut baaraam dinaa dinaa salfaañe jàmm ku nekk bu defee li ñu wax responsabilité am jàmm day am foofu la. et la justice dans tout ça. et la justice évidemment elle est fondamentale ndax justice moo naan kii lii moo la war kii lii moo la war bu ko jéggi bu ko jéggi justice bu justice, normalement hein, justice bu amé normalement jam daf ci top. a justice responsabilité de ci askan na wax la yoon wax ñu def ko te bu yoon waxe ñu teural wax ja ñu appliquer suñu problème nak moy ci suñu réew en général euh, dañuy wax ni yoon li la wax waaye application mooy suñu problème mm-hmm. dañuy tëral ay loi mais duñu ko appliquer. <coughs> professeur ñi ngi ñi ñi ngi woote jàmm euh, signer charte yomb na lool waaye jëfe ko mooy problème fi mu nekk nii élection yi daanaka euh, bi mu démarré ak léegi campagne bi yàggul mais bés bu nekk ñu dégg fitna ju nga xam ne moom moo juddoo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy xëcco loolu yi tamit jot nañu wax ci wax ak askan bi ñi nga xam ne ñoom ñooy candidats yi tamit est-ce que du programme la ñu war a xeexee et non pas di dóorante kurpañ ak jaas waaw ñun dañu am habitude di wax ni violence bu amee rek c'est que nit ki dooleem moo manqué xelam moo manqué xalaatam moo manqué jëfam moo manqué su ko defee day naan am naa doole dinaa la kurpañ dinaa la jam te loolu soxlawuñu ko léegi ñun li soxla mooy jëm ca kanam lépp loo xam daf ñuy retardé di ñu tardeloo waruñu ko def kon ba candidat yi ku ci nekk fexeel ba askan bi dégg la nga convaincre ko nga ni lii laa bëggal sama askan moo gën ñu naan dañuy tase ci ay mbedd di koñante di kurfañante amul njariñ te man de maa ngi xool ku def loolu duma la voteel parce que dama naan kii amul ay idée amul ay xalaat yu mu indil commune yi duma la voteel parce que problème nga ndax encore une fois nee naa suñu bëggee defar suñuy gox suñu bëggé defar suñu suñu dëkk violence amu fa yoon amu fa place jamm moy tax ñu xalaat jamm moy tax ñu loxo te réew mi metti na metti go xamné suñu joxanté loxo pour xalaat ak jëf duñu dem fenn kon li ñuy wax responsabilité la

yi ci bir gox yi gox goxaan yi mais dañu samp loolu ñu naan troisième voie nga xam ne projet politique la campagne bi ak élection yi taxul woon mu jóg dañu bëgg xam après lu ñuy defal askan wi hmm. waaye comme élection yi dafa ñëw dañ ci profiter ñu am ay candidats am nañu ay candidats ci yenn gox yi. combien am nañu à peu près 15 candidats. Hmm. mën naa leen ko wax léegi nii. gën a fës waaw. waaw Richard Toll. Richard Toll Khalil Diop mu nga fa. Patar professeur Ibra Diène mu nga fa. Gandiaye Marie Diouf mu nga fa. jowal Joal Fadiouth du Ndiaye mu nga fa. Ndakaaru nag. Ndakaaru. donc bataay Ndakaaru. ville ville ville de Pikine ñu nga fa. ñu nga euh, kii Hann euh, Bel-Air ñu nga fa ñu nga euh, ville de Rufisque. ville de Dakar lu tax amu am ngeen ci wala. ci biir ville bi amuñu ci. lu tax yow nag moom sax moom personnellement. waaw c'est ça lan moo tax. demoo ci ville de parce que dama préféré pour le moment. Mm-hmm. bàyyi ñeneen ñu dem. Mm-hmm. parce que yëf yi du xëccoo pour xëccoo. Mm-hmm. du xëccoo pour xëccoo njariñ la ñuy wut encore une fois.

Je suis candidat en 2012. professeur lan mooy cette ligne de démarcation par rapport ak ñi nga xamante ni ñoo samp seen dënd c'est-à-dire que yéen euh, ci posture bi ak discours bi ak euh, intention yi euh, qu'est-ce que vous apportez de nouveau loo xamante ni mën nañu am fu mu ñu jëlee am fu mu ñu yóbbu. jëriñ Sénégal. oui parce que loolu ñëpp a ngi koy wax jëriñ Sénégal ku jóg taxaw da nga naan dama bëgg Sénégal. mais Moi... à l'arrivée dañuy gis souvent entre le discours ak li nga xamante ni la réalité la réalité du banc de touche différente de la réalité du terrain souvent dañuy gis ne nit ki day mel ni dafa soppeeku. waaw c'est-à-dire que aujourd'hui où se trouve la ligne de démarcation. par rapport aux autres gëm-gëm engagement. koo wax ku wax ni la lay defee ëllëg détourné c'est que amo gëm-gëm ñun nag gëm-gëm la ñuy demee ci suñu lépp nag te teg nga ci bët ku mel na yow teg nga ci bët say morom teg nañ ci bët ñun gëm-gëm la nuit demee alors ñun nous dañu focaliser nous. Euh, les ñuy def par parloo ci seet naka un nouveau projet de société par exemple basé sur le retour aux valeurs Il y a wax ñun valeur lañ wax. mais par par wu mais da ngeen par parlo kay foofu la yem non non non ça n'a rien à voir. politique politicienne démocratie de concordance def. politique politicienne c'est différent de politique au sens noble du terme. mais nous, ñan ñoo de deful politique politicienne. nous ñun du ñun dañ ko bañal suñu bopp. ñan ñoo def. mais la plupart du temps moi les sénégalais yi nee nañ bëggatuñu politique bëggatuñu gis politicien léegi barke dem laay wax au niveau de l'université ou au département de sciences politiques dama bëgg ñu def benn lël sur la notion de politique parce que politique c'est noble bi ñuy wax ak ak adam doomu aadama ci kuréelu àddina catégorie ak yelleef doomu aadama yi ñu jëkk a samp mooy les droits civils et politiques affaire famille affaire justice affaire sécurité ak politique maanaam naka la ñuy tànnee suñuy njiit c'est tellement important <coughs> Tant que bu tax nga on l'avait euh, déjà dans la charte de Mandé on ne peut pas attendre les occidentaux sur ça on l'avait déjà dans la charte de Mandé on l'avait dans la révolution Torodo on l'a eu c'est-à-dire que est-ce y a un décalage de nos hommes politiques des prétendants à la magistrature par rapport à la réalité sociologique de de bi. ban réalité sociologique d'abord il y a une affaire charte du Mandé.

dafa baax politique de santé politique économique politique d'éducation etc etc mais li ñu wax politique ki jël na loxom dugal sama bëtt dina ko mbéj dinaa ko gaañ kii dinaa fexe ba ma jël place am te du da ngay convaincre etc etc donc politique dama bëgg universitaire justement laaj n'a leen ko nee naa leen dimbali leen askanu Sénégal wax leen leen lan mooy politique ak lan moo war a nekk politique. parce que lii ñu gis tey si la. du ñu yóbbu fenn fu. Marcel dégg nañu ngeen di wax valeur. Euh, tey euh, boo waxee politicien ñu ne la waxu politicien jarul dóor sa doom euh, tey yan valeur ngeen ngeen di incarné wala ngeen yaakaar ne tey kuy dagaan baatu askan bi valeur yooyu la war a am ba ca tànneef ko du ñu jiw. xam nga leen laa bëgg déjà programme yi. ku ci nekk ca sa gox en relation avec les lois du pays waaye discipline na dellu si si réew mi waay hmm, yar ak teggin su ñëwul duñu dem fenn discipline na dellu si ci ci réew hmm. commune yi élection yi corruption bi war nañ ko seetaat balaa ñu lay xaatimal kayit nga joxe cinq mille francs c'est de la corruption. C'est inadmissible. C'est inadmissible affaire u euh, domaine national terre souci, suuf si ak gi ci nekk. ak jigéen surtout. ñëpp jigéen ñi ak souvenir, koo xam dafay am suuf ñu siif ko ñu dem ñu signaler mais c'est quoi jëkkoon nañu mais c'est quoi kuy siif. maire yi moom jaay lañu ne. kuy ah. il faut aussi qu'on nomme les choses.

aller à la conquête du pouvoir di xëccoo nguur te la société civile kay danaa tëddee njaaxaanaay di liggéey liggéey boo xamante ni de veille la ak xool naka la def bu suñ démocratie état de droit bi gën a ñoŋ yow si on prend votre cas yaa ngi nekk créé nga sa parti léegi mënatuñ laa boole ci société civile on voit beaucoup de membres de la société civile yoo xam ne ñi ngi ci élection yi di xëccoo est-ce que loolu la ñu xaar ci société civile. ils mani, ils ont raison. maa ngi maa ngi yëf yi bu ñu tuddee seen bopp société civile. yëf yi yëf yi du affaire nekk société civile affaire gam gam la te nit meuna un am parti politique gën am logique pour les populations que société civile n'est-ce pas comme société civile nous gam population Nous ñun moo def troisième voie képp ku gëm population yi koo ni bañ nga nax population yi dañu bëgg nga ñëw ci suñu troisième voie bi parce que moy la voie de l'avenir mom moy voie bi nga xamni dina tok liggéeyal au moins askan bi dina wax dëgg askan wi parce que ñàkkum wax dëgg gi ak jëf dëgg ak corruption moom moo yàq réew mi kon ba ñun noonu la du affaire sax société civile rek am parti politique yo xam ne seen xel seen xalaat comme bu euh, euh, les li askan wi bëgg la. Hmm, Marcel, vas-y pour ta question. professeur pour euh, xam pour xam rek seen ambition sur le plan électoral est-ce que législative yi tamit mën nañ leen ci xaar ak pourquoi pas présidentielle est-ce que euh, l'année 2019 boo ci mënee vous si euh, présenter euh, est-ce que problème parrainage nga parce que ni nga ko waxee sànq amoon nga sañ-sañ quand même nekk qui bu présenté à la présidentielle en 2012 l'année moo tax indi waatoo ko en 2019. waaw mais 2019 boo ko waxee rek jigéen ñi am naqar ndax dañ leen beddi ndax Sénégal des ci affaire quelque chose de malheureux déposer dossier effectivement man 2019 ku élection <laughs> donc ça rejoint la <laughs> bon 2019 li xew man déposé un dossier au niveau du conseil constitutionnel góorgóorlu na ba am parrainage parrainage bon góorgóorlu ba am ay parrainage waye ba ma demee dañ ma ni clé bi nga dugal say parrainage dafa am virus ken mënu kaa ubbi non lañ ma daxé dé ak signature yi aussi wax na parce que après le conseil constitutionnel tenir na à Sali Ben, séminaire boo xam moi j'y étais le président du conseil constitutionnel ak seen informaticien bi pour voir tout cas quand même wax na ni signature yu bëri professeur baaxul signature yu ñu waaw ci ci parrainage bi ñu la gëna a am ñu sax xam ñu la. ma ni xolal xam nga ñoo fu ñu déconné dañu déconné parce que bu ñu demee séminaire public di wax yenn détail ci dossier nit ñi c'est que amuñu un secret. Ah, le secret qui fait le leur rôle. Il faut ko doon waxee ci journaliste yi kon boog dañu mauvaise intention. dëgg la dañu bëggoon a weer ay nit. ah dañu weer di tuuma nag dañ leen a tuumaal ñuy di tuuma. non non non ah, règlement de compte la. Ah, hmm. règlement de compte waaye loolu amul njëriñ lu conseil constitutionnel conseil constitutionnel eu yu décision daf koy motiver professeur vous avez eu quand même la décision. waaw mais j'ai eu la décision mais d'un di ko séminaire. organiser séminaire. Pour pour weer ay nit loolu ah, xoolal léegi dama bëgg sénégalais yi xam ni réew mi dafa war a nekk réew civilisé ah, ah. élégance élégance voilà donc maintenant mais ñàkk ful ak fayda baaxul C'est une ambition donc a une troisième voie sàmm jikko jàmm non non, non, ñun ñun pour la projet de société lañu hmm. programme lañu pour askan bi programme bobu day laaj nga mën a fa ñuy jëlé ay décision su soobee yàlla législative troisième voie dina participer su ko yàlla bëggee. incha allah hmm. incha allah rabbi question rek par ah, rapport ak Dakar la ville de Dakar la ville de Dakar aujourd'hui dafa am ben jigen bu koy xëccoo muy Soham Wardini

Banka ko dama ñu ko yaay boy am nga sa sœur am satu saw Sidibé dafa am troisième voie coalition kay ak mom. Mhm. bon malheureusement xeyna kenen mo moo moma moo jëkk ci mbir yi union mhm. citoyenne buntu bi ñoko ko a fat euh, parce que yéen voilà mais c'est pour dire que ñun duñu bàyyi jigéen ginnaaw ci mhm. yëf bi parce que participation jigéen dafa am solo plus de 50% de la population suñ ko beddee dañuy dellu ginnaaw mais mën ñu avancer. loolu buñ ko dugalee suñu xel. lépp lu ñuy defati daañu sóoraale jigéen. oui oui professeur oui vous, vous avez aussi voulu vous prononcer sur affaire rejet proposition de loi yi député yi defoon ci assemblée nationale criminalisant l'homosexualité assemblée nationale bureau ba dàq na donc da nga koo ñaawlu. Euh, bureau ba dàq euh, loi bi. waaw. bon euh, projet de loi bi nag déglu naa ko suivre naa na mu demee euh, man li jëk bëgg wax rek moo di ni ñun ay jullit lañ ay ay religieux dañu nekk une société religieuse musulman ya nga fi chrétien ya nga fi xëy ñeneen nga fi aussi amna ay pratique yo xamni daf ni daf ni naqari il faut le dire ñun ay affaire homosexualité waxuñu ci dara parce que juriste lañu xam nañu lan moy acte contre nature parce que yàlla am na lu mu bindee góor ko n'est-ce pas bon cela dit sans que ngi leen di wax nous avons une ay loi une application un problème avons une loi code pénal 319 alinéa 3 qui parle d'actes contre nature c'est une expression générique Nous c'est ça, fourre mais il faut l'appliquer. Hum. Mais il faut le préciser aussi. Mm. Il faut il faut l'appliquer. C'est en l'appliquant <coughs> qu'on précise le contenu de cette loi. Il faut des décisions de justice mm. pour préciser le contenu de cette loi. Mm. Parce que li ñuy bañ mooy pléthore de de loi Manam loi yu bare bare bare ba de xam doto xam sax looy def. ngor jigéen dal yow dàq lako bugo ko. ah non man loolu man wax ma ci dara. mais nag ma wax leen dara. ah da nga cee war a wax na hmm. professeur suñu société suñu société. da nga cee war a wax góor jigéen baaxul cim réew. yaa yooyu wax naa la ko. mu wax na ko moom moom la moom la commencé moom la commencé ñu jigéen allez yàgg fii ñun biñ nekkee xale dañ daan gis ñoo xam ne.

waaw ci ay gouvernement ak yooyu il faut boo nekkee góor jigéen day gën a yomb ci xaw ma phénomène bi man xaw xaw ma ci lu bari. Ah, loolu am léegi hmm. léegi mu nekk mode. mu nekk mode nag mu nekk lu grave parce que société mënul vivre avec des contre-valeurs et ce qui est contre nature. alors man li ma bëgg wax rek quand même. mooy loi bi professeur loi bi sama problème ak projet de loi bi. moo di dafa am lu may fàttali daf may fàttali li ñuy def code de la famille tout le temps ñu naan code de la famille dañ koy lakk yàgg nañ ko wax ça me fait peur ça nous fait peur Là moo nekk derrière ça c'est ça notre préoccupation parce que nee Sénégal pardon Sénégal c'est un pays religieux donc islam a ngi euh, euh, musulman yaa ngi fi chrétien yaa ngi mais on n'est pas un pays islamique hmm. attention hmm côté boobu dama tiit nak xaw limay gis lan la. merci merci professeur. merci beaucoup merci beaucoup professeur Amsatou Sow Sidibé présidente euh, troisième voie sàmm jikko jàmmoo jariñ Sénégal professeur dila la sant di gërëm bu baaxa baax ci wuy ci bi merci beaucoup professeur <laughs> jërëjëf sant la gërëm la bu baaxa baax ci wuy ci bi légui dañuy jall ci une l'observateur ak <laughs>